asalaamaaleykum yéen waa groupe bi tey dama bëggoon waxtaan ak yéen ci tarification woyofal bu Senelec parce que dégg naa ci toujours débat bi day ñëw ko ñëwaat quoi euh, parce que affaire bi prix bi moom mënul nekk prix fixe par exemple client bi day ñëw yor 2000 francs jënd am par exemple euh, am 10 kilowatt heure euh, mu ñëwaat jëndaat 2000 francs am par exemple 5 kilowatt heure ainsi de suite te clients yi mu mënuñu comprendre loolu quoi léegi nag yow agent bi nga xam ne yow yaa leen war a expliquer affaire boobu nag boo ko maîtriser wul tamit da xaw a indil ay jafe-jafe léegi moo tax ma ne woon naa gën a indiwaat euh, ay leeral ci tarification woyofal bu Senelec bi comme niñ ko comme ni ko Senelec présenté fii ci communiqué bi nekk fii nii euh, mooy bii moom mooy tarification pour les clients domestiques client domestique nag boo ko déggee mooy mooy clients yi nga xam ne par exemple euh, mooy ñi nekk seen kër quoi nga xam ne ñooñu compteur compteur kër lañ koy wooyee quoi ñooñu en général client domestique lañ leen di wooyee léegi ñoom seen tarification comme ni ko Sénélec bindee fii mu ne une redevance de quatre quatre cent vingt neuf francs quatre cent vingt neuf francs yi mooy location compteur bi mais quatre cent vingt neuf francs yi pour ñi nga xam ne nii compteur kër dong lañ yor euh, loolu mi nañ ci bàyyi xel après dinaa gën a ñëwaat ci détail ci beneen tableau boo xam mooy gën a détaillé affaire bi léegi quatre cent vingt neuf francs yooyu noonu Sénélec da koy jël à chaque chaque mois daf léegi tamit en même temps mu ñëwaat ci beneen forme boo xam ne forme forme de calcul la boo xam tamit euh, am ñu bari ñoo xam ne comprendre par exemple dafa am Senelec dafa am lu wax première tranche am lu ñuy wax deuxième tranche am lu tranche mooy lii par exemple bu nekkee ne yow li nga jënd euh, dépassé wul par exemple mi ngi diggante zéro ba cent cinquante kilowatt heure boobu yaa ngi ci première tranche client toujours li muy jënd rek bu nekkee ne dépassé wul cent cinquante kilowatt heure mi ngi ci euh, première tranche su nekkee ne par exemple dépassé na 150 kilos heure nekk ci 151 ba 5 250 kilos heure boobaa client mi ngi ci deuxième tranche mais lii pour euh, client domestique yi la ba léegi na ngeen ngeen euh, def très attention pour bañ euh, pour bañ a jaaxase affaire bi parce que lii c'est pas valable pour tous les clients léegi bii troisième tranche bi mu nekk plus de 250 kilos heure bu client bi li mu jënd bu dépassé 250 kilos heure rek day bi boo xoolee toujours mooy gën a yomb léegi léegi li muy li muy li muy kilowatt heure bi li muy jar foofu day gën a day gën a yokk ainsi de suite loolu dinaa ci gën a ñëw ci détail pour euh, ngeen comprendre ko euh, par exemple boo xoolee fii prix kilowatt heure bi euh, kilowatt heure dafa mel ne lii 93 45 la mais danaa ci gën a parce que bu grille tarifaire bu bees bu Senelec moo nekk nii léegi nañ ko examiner xool ngeen gën a comprendre par exemple fii boo xoolee catégorie yi Senelec am dafa bari boo xoolee fii am na li ñuy wax usage domestique te usage domestique fii am na deux catégories am na lu ñuy wax domestique euh, petite puissance ak domestique moyenne puissance loolu mooy usage domestique te foofu boo xoolee kenn ku ne sa kilowatt heure par exemple bu dee première tranche bi kii kilowatt premier euh, kilowatt heure am mi ngi jar ci première tranche mi ngi jar quatre vingt onze point dix sept bi mi ngi jar fii cent douze virgule comme ni ma ko expliqué woon bi boo jógee ci première tranche dem ci deuxième tranche kilowatt heure bi li muy jar day yo gën a yokk nga xam fii boo xoolee cent douze virgule cinq franc la. boo demee ci troisième tranche mi ngi nekk cent vingt quatre virgule soixante deux francs bu dee domestique moyenne puissance bi mu abrégé fii DMP euh, loolu la tamit première tranche quatre vingt seize euh, point soixante douze ainsi de suite te yii tamit benn bu nekk location compteur am euh, par exemple catégorie yi location compteur am day day différencié par exemple bu dee usage professionnel xam naa mooy li ñu ëpp li ñu woowee usage commercial bu boobaa location compteur bi du tudd nekk quatre a day gën te boo xoolee fii bu dee par exemple ki utiliser usage professionnel bu dee dafa am ñaari façon am na petite euh, puissance ak moyenne puissance bu dee petite puissance bi euh, première tranche bi mi ngi nekk euh, kilowatt heure bi mi ngi jar cent quarante deux virgule quarante quatre francs deuxième tranche bi mi jar cent quarante neuf virgule quatre vingt quinze francs troisième tranche bi mi ngi jar cent soixante trois virgule quinze francs ainsi de suite nga xam boo xoolee tableau bi mën ngeen ko lire seen bopp pour comprendre ko nga xam ne nii lii mooy yi moom la gis nga nii façon façon catégorie Senelec yi euh, façon catégorie yi ma ngi ni euh, usage professionnel usage domestique ak usage grande puissance fii dafa dafa ñëwaat résumé kii yi rek résumé affaire yi mais boo xoolee li mu bindoon fee moog lee ñooyam léegi nga xam ne ñett euh, fa boo xoolee fii am na trois catégories catégorie domestique catégorie professionnelle ak catégorie grande puissance te boo benn bu ci nekk rek ak tarifam moo tax dafa nekk loo xam lu xaw a néew compliqué na sax mais dafa xaw a nekk loo xam Euh, lu jëfe expliquer la parce que euh, client bu nekk ak catégorie bi nga xam ne ci la nekk bu dee client bi nga xam ne catégorie domestique la euh, li mooy tarifam nga xam ne catégorie professionnelle la li mooy li mooy li tarifam bi nga xam ne catégorie grande puissance la li mooy li mooy tarifam te tarif bi day évoluer suivant tranche bi nga xam ne ni ci la client bi nekk comme ni ma ko expliquer quoi loolu laa bëggoon ngeen jàpp ko xam ne léegi kon client bi bu ñëwee seen place présenté wu il faut ngeen am nu ngeen koy aborder expliquer ko ci pas de façon technique comme ni ma ko expliqué nii mais euh, ci wàcc ci niveau bi nga xam ci la client bi toll pour expliquer ne ko mën na jënd 2000 francs tey nekk 10 kilowatt heure ëllëg mu jënd euh, mu jënd 2000 francs yooyu mu nekkaat 5 kilowatt heure suivant par exemple euh, tranche bi mu nekk wa ilaa suivant location compteur bi nga xam ne moom la war a fay à la fin de du mois loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information pour tarification Woyofal bu Senelec di leen jaajëfal yi ñëpp baax na wasalaam